Euh, bu ngeen gisee ni leen ko waxee woon rek ci image yi jote weesu fii ci xam ne mooy kër Cheikh Abdou moom Baye Cheikh Khady euh, ñu di ko tuddee université Cheikh Abdou moom Baye Cheikh Khady ndax fii la xam-xam di bale waaye fii la boroom xam-xam yi di daje ñu taxaw ak kenn ci mu àdduna bi kàn kàngamu réew mi di sëriñ Babacar Mbuub waaye it bokk ci yoon wi bokk ci dëkk bi di fi doom eh, di fi taalibe am am fi ñaari cër ñaari taxawaay benn bi ci njëkk mooy askan wi nga xam ne saa su nekk moo ko ñor moom lay teewal waaye beneen bi ko ñorit di taalibe gi mu doon ci kër gi ba tax mu wuy si eh, Babacar nan nga gisee Cheikh Abdou li mu woote ak fi mu ko wootee ci kër baayam Baay Cheikh Xadi eh, ma nuyu leen ba noppi ziar leen nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom ñuy topp ci Touba Vision sëñ du Mbacke euh, dafay nitum nit ñi euh, boo dikkee ci jotaay bi danga nga fi fekk ku nekk euh, ñu jógee ci horizon yu wuute waaye terewul ñoom ñëpp mu ubbeeku yaatu yaatal aussi hmm, moom yàlla dimbalee na ko ñaar yooyu yaatu na waaye yaatal na itam ba tax na boo dikkee tey da nga fi fekk ñëpp ñu ñëw fekk si ko. ci bis bi nga xam ni bis bu mémorable la euh, nekkoon ci contexte bu doy waar aussi ci Cheikhul Khadim bi mu génnee ñu jàpp ko jël euh, boo demee ci Assirou danga gis un mu décrire ci euh, contexte ba na mu demee woon ah ko suuri li ma di la si dem waaye yàlla far ko ci noonu mu waxoon rek yàlla lay àndal moom lay fekk te moom lay liggéeyal kon dooy na ma wéttal doy na ma islaay ba fukk ñiñ ko doon may sax pour mu ànd ak ñoom ci njaboot gi lépp mu gàntal ko kon seetlul ma loolu ñi ko doon mel ni yaakaar ni dañ koo jàppit am intention tasaare lim doon def tasaare ak njabootam fay ay taalu jàngoom waaye taalu jàngu yooyu ak njaboot gi yëpp kan la ko dénkoon kan la ko bàyyi woon muy maam Thierno Ibra Fati mu dem ñu bari yaakaaroon ni dootu delsi mu delsiwaat ñoom ñaar seen daje boobu xam nga li muy symboliser kon dafa bari ci sëriñ bi jaayante gi mu jaayante woon wéet gam ca nangoo wéet ak li mu doon wut yàlla dem ci contexte bu particulier seq ko kenn nit wala benn groupuscule waaye état la ko seqaloon euh, mu doon euh, état bu am doole ci jamono yi bokk ci ñëppoon doole nekk ñu xam ko muy France waaye mu yilif suuf su bari Afrique yilif ko Amérique yilif ko Asie kooku moom moo moom moo moom moo euh, doon jëflanteeg sëriñ bi waaye nag contexte boobu ak sëriñ bi ci woote bi nga xam ne mi ngi soog a tàmbali di door mm. xëy na ca Mbàkke Kajoor gi bu ñu dellusee it mu jóg fi waaye terewul gis nga maam Thierno lépp mu téye ko bi sëriñ bi dellusee it gisu ci dara lu mu doon sip wala lum ni lii kat yàqu na wala lii sooxe na. kon ñoom ñaar seen daje boobu symbolise na lu bari loo xam ne ndaw ñi warees na ko gën a mën a jànkataat pour mën cee gën a roote ci ay valeur mm. ak njàngale moo xam danañu gën a mën a dëgëral ci choc de civilisations bi nga xam ne ci lañu nekk fi mu nekk nii lu bëree bëri. loolu lañ ci war a jàngee lu bare bëri xam naa sax ma ñëwaat bala ngay ñëw sa diggante Cheikh Abdou ndax lu yaatu la maam mi ciy jàngat mooy kon kan kan la ñu war a dénk ban njiitu réew la ñu war a dénk réew ban boroom kër la ñu war a dénk kër ban sëriñ la ñu war a dénk taalibe kan mooy ki ñu war a dénk. xam nga dénk moom dénkaan dafa am dafa am dafa am lu mu laaj ku ñuy dénk. dafa am ay jikko ak melokaan wu mu war a am pour ñu mën koo dénk ki ni dénk faw mu doon koo xam ni si ku nu wóolu la faw mu doon koo xam ni wóolu goo xam si jàngat nañ ko ba seetlu ko ci ak doylu ci moom ci te ci moom ci tamit boppam rek bañ koo yitteel mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a ba nga xamante ni boo ko dénkee lu nit ñi maase bokkit mën a mën a jooju du ca primé ba mu jaawale li ci bokk ak loo xam ne si njëfi boppam la inte intérêt boppam la waaye dafa am ku ñu war a dénk koo xam ne sii nag ci ngor ci jom waaye ci fit ndax léeg-léeg yëf yi dana metti metti goo xam ne xam nga ni àdduna yàlla binde noonu dafa bind nit ñi ngir nattu leen kon teg-teg yooyu tamit nit ki boo ko bu bu amul jom bu amul ngor bu amul fit dana mujj ne yasat bàyyi lañ ko wàccoon lépp daw yooxu na fekk na te loolu lépp dañ koy fekk ci maam Thierno euh, ci njàmbaar ja ca ngor ga ca fit wa ca jom ja Euh, loolu dafay am solo nga xam ni kon du ñëpp lañ war a dénk d'ailleurs boo xoolee man toujours li tax may wax ni <coughs> euh, Sénégal li ñu war a jël ci suñ ndono jëlaguñ ko ba tey mooy gis nga même système politique bii ni ñu defee ak ni ñuy fale dañ ko waroon a soppi gis nga képp ku ni fal leen ma waruñu laa fal <coughs> loolu laa gëm man képp ku ni fal leen ma seulement nag lii moo fi nekk fi mu ne waaye dama ne ni ñu waroon am mooy ku ni fal leen ma sax dañu la ko war a xañ sëñ bi lu ñëpp war a dénk kenn ñu war a jóg naan fal leen ma dañoo war a bàyyi nit ñi am collège boo xam ne am nañ xam-xam bi am nañ dayo bi am nañ jaar-jaar ba ah, nga xam ne mën nañ leen a méngale ak ay grand grands électeurs ñooñe ñooy seet nit ñoo xam ne xam nañ leen ci seen jaar-jaar duñu ay tooñkat xam nañ leen ci seen jaar-jaar duñu ñoo xam ne dañoo luubal ay ay mbir xam nañ leen ci seen i jaar duñu ñoo xam ne siit ameel nañu ak nit ñi àq joo xam ne ko xool danga ko gis danañ li xool seen i jaar-jaar yi ci fi nu jaar bàyyiwuñu fa pënd boo xam ne ak i ñagg-ñagg yoo xam ne loola mënees na ca teg baaraam ñooña la ñu war a tànn di leen dénk lu nit ñi lu ñëpp bokk waaye du ku jóg ñu war laa dénk léegi nag kan la ñuy dénk moom boo saw làmmiñ bu neexee rek ñu mën nañ laa dénk su fekkente ni sax léeg-léeg mën ngaa génne benn arrogance bi sax ñu ne waa ji dafa am fit dafa anam nga déedéet loolu jotewul ak loolu dara ah Mm-hmm. rawatina ci bu fekkente ne dañoo bëgg ñu ñu ñu ñu defar mm-hmm. ba tax na kon jàpp naa ni euh, bis bii rek waras na cee mën a jàngatewaat kon kan lañ war a dénk mm-hmm. kan lañ war a dénk waras na ko mën a jàngate ci bis bi génne ko ci nit mu doon patrimoine boo xam ne patrimoine national lay doon voire africaine nga xam ne ñun ñëpp ñu ñoo ko mas mas mas mas mas bokk mën koo jariñoo tamit parce que nag sëñ bi jariñ jariñoo jariñoo rek lay jariñ de njariñ moom buñ ko mën a jariñoo tudd na ko waaye jëriñoo wuñ ko donc loolu la sëñ Abdou nag moom dafa teel a comprendre loolu teel na ko comprendre moo tax wax naa la sànq ni la moom euh, xatalul dafa yaatu te yaatal na sëñ Saliou Mbacke dafa daan wax ni du fekk lu yàlla xatalul ma koy xatal xam nga diine lislaam ji xatul diine ji ñu ñëpp ñoo ko bokk sëñ Abdou moom dafa comprendre loolu moo tax mu yaatal xoolal ñu ngi fi fekk ñëpp tey ji ndax la xam na ni toolu lislaam bi moo ñu boole mboole suñu Euh, euh, sëñ bi bi muy jug dafa ni fa bashir zawil islaami bi ajilan wa kun muniran bil islaamu anta muniru dellu ni diini ilal jannatil islaam wa waala diinan siwaahu wasa nafsun minallaahi kon lislaam jooju mooy tool bi kenn ku ci nekk mën ngaa am saw dog woo xam ni yaa nga fa féete sa waar la nga nekk ca fexe ba mu war a euh, jag mu jagee bu fépp jagee rek bu mu dajee ci tool bi moom tool bi moo ci am intérêt sëñ Abdou comprendre na loolu li ci des nag réew mi ay catholique nekk nañ fi ay julit nekk nañ fi ñeneen nekk nañ fi ñun ñëpp ñoo maase bokk réew mi waaye gis nga moom am na ubbeeku googu am na yaatu dënn googu ba xajoo na ñëpp ba bari aana ñoo xam ne sax xame nañ sëñ bi ak soppeeku sopp sëñ bi ñoo ko ñoo ngi ko xamee ci ku mel ni moom wala ñu mel ni moom am taxawaay bi ñu taxaw kon nag sëñ Abdou ñoo ngi koy ndokkeel vraiment ci bis bi ak taxawaay bi euh, wax dëgg yàlla nii rek la mën a taxawee kon ni maam Thierno nooy sa maam Baye Cheikh Addi mooy sa waajur yaakaar naa ni taxawaay bii rek nga war a am vraiment ñoo ngi am mbégte ak contentement lool ci jotaay bi ak fekkee gi ñu ko fekkee di ñaan yàlla ñu fekke ko yeneen déwén yu bëree bëri itam. ñu ñaan yàlla fekk ko at yu bëri xam naa benn kàddu gu mujj rek mooy université Cheikh Abdou moom Baye Cheikh yi ku fi ñëw ba déglu conférence bi ana nan nga war a doxee boo eggee sa kër. Euh, xanaa li fi rot ci euh, euh, njariñ ñu jël ko jëm koo jariñoo mel ni dañuy mel feebar. Euh, soxla ay doom yoo xam da nga koy naan li nga fi fekk ñu waxtaanee ko fi problématique yi ñuy posé wane ni lii moo war a doon solution bi loolu suñ demee kenn ku ci nekk ñun ñu appliqué ko suñ bopp keneen nit appliqué ci boppam man jàpp naa ni fi njariñ li di nekkee euh, wax dëgg yàlla ndax bu dee ci geneen fànn gi ni defal ay bernde kenn ku ci nekkuñ ci tegal benn da nga jéem a fexe ba jariñu ci kon li ñu fiy def ci xam-xamit moom nit ñi nañ ko jéem a jël waaye di ko jéem a ci seen dund bu lépp di bari seen kawit nañ ci jël par tuut tuut liñ ci man di ko appliquer progressivement mën nañoo dem ba bu dewee ne danañ gis ni am na lu soppiku ci seen dund te loolu wax dëgg yàlla moom rek la ñuy eh, ñaan borom xam-xam yi loolu rek mooy li seen coono yi ñuy def waxtaan yeeg ak di yaatal xam-xam. loolu mooy li nga xam ne mooy kàddu sëriñ Ababacar Mboup xanaa kàddu yu mujj rek li ngay soññee mbaa li ngay ñaaxe mbaa li ngay sante rek incha waaw xanaa di sant bu baax a baax di wax nag ndaw ñi nañu gën a feetle rek seen laxasaay eh, ci xool ci ku mel ni maam Thierno Ibra Fati mën nañoo jëlee ci moom loo xam danañ ko jariñoo te bu ñu demee ci sphère de nations yi tamit génn ci àdduna euh, sur le plan international euh, njëriñ la loo xam si danañ xam ni mën nañ koo jariñoo kon loolu nañ ko ci bàyyi xel jeunesse actuelle bi nañu gën a bàyyi xel réew mi tamit gis nga Japon na mel ay malaaka wàcc ñu def ko ay jinne wàcc ñu def ko nekkuñu tamit ci ay xumtoog di gëm loo xam ne si kenn xamul lu mu doon Chine kazalika Corée du Sud gii rek nga xam ne ñu nag moom daanaka Sénégal la ko tane woon en 1963 Sénégal dimbali na Corée tey Corée moo ñuy dimbali kon capital humain boobu ñun ñàkkuñu ko am nañ ko yi ñu intelligent lañ kon ndaw ñi nañu xam ne États-Unis ga ñuy nit ñi bëgg dem wala Europe gee ay nit a ko def noonu waaye du ay jinne ak i malaaka kon ñun nañu laxasuñu nit fexe ba suñu suuf si ñu def ko defin woo xam ni adduna sépp danañ ko xemme ma ñëw ngir bëgg fee ñëw dëkk si ak ñun man daal jàpp naa ne loolu te defi boobu jeunesse bi rek ko mën a relever maa ngi leen ci woo di ci woo sama bopp itam ngi ci woo di ci woo boppam kon mbokki téléspectateur Touba Vision loolu mooy kàddu yi nga xam ne moo tukkee woon ci Serigne Ababacar Mboup euh, te ku nekk xam ko ci association sàmm jikko yi waaye xam ko ci yoonu murit waaye xam ko ci diggante ma Cheikh Abdou kon noonu lañ leen koy toppalee rek ci saal bi boobu ba tey rek ci yeneen kilifa yi nga xam ne ñoo ngi fi incha allah taataan seen i kàddu jërë ngeen jëf asalaamu aleykum wa